والنبي ورسول والخليل هو الأب والإمام والدنيا برابدك من خير جماع وسانوه رسول الخير كما كون النبي المنتهى محمد خلا ولا مختار هند السمد كون muntaha muhammad xale wala muxtaar hinda samadi kawnu nabi al muntaha muhammad xale wala muxtaar hinda samadi kawnu nabi al muntaha muhammad ak muxtaara hinda samadi jërëjëf Seex Bamba yaa mata àndal kulam dootu ñàkk bay xaaraane jërëjëf Seex Bamba yaa mata àndal kulam dootu ñàkk bay xaaraane